jule ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si le mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak ceraanga ak poche def dara niñ ko baaxoo fajar di def fajaru dimaas mooy ànd ak yéen ci min ku noo si sunna min si sunna ay jataay la yoo xam ne ñu ngi ciy jéem a jàngale lenn ci la sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal xeet wi xeet wa doon ko dégg jox ko attaabiuuna taabiuuna dégg ko jox ko asalafu saalix asalafu saalix di ko joxe ba fi nu toog su defeem seen rajo di leen ñëwal ci waxtaani fajar yi di leen indil tomb yooyu tomb tey bi mooy aklu rajul min amali yadi aklu rajuli min amali yadi nit kuy dundew ñaxam nit kuy dundew ñaqam sunu bind bi nu weesu ko defoon ci seeti xabru ya ziyaare ji xabru ya waaw ziyaare ji xabru ya ak nañ koy defeek yañ cay tereeg yañ ca mayeeg yañ ca bëgg ma ne tey dañu ñëw ci nit kuy dunde aw ñaqam sallallahu alayhi wa sallam bëggoon nit du dunde aw ñaqam la daawul encouragé mukk nit koy lijjanti lijjanti mukk daawul encouragé mukkit nit kuy laaj waaw moom dafa bëgg nit kuy dundew ñaqam dunde saw ñaq mooy fexe ba am métier fexe ba am métier soo demee tey France fekk fa Doro Sylla ca métier dafa jóge Sénégal dem France te yóbbu métier bitim réew képp ku dem te yóbbu métier boo demee boo àggee dootu mu rànk biir réew mi it ku fi nekk te yor métier noonu la waaw nit ku dundew ñaqam dafa fekk ne léeg-léeg ñu ne état wutal nit ñi liggéey loolu jafe waaye état sàmmal nit ñi seeni métier jëfewut lool booboo gën a yomb waaw dunde saw ñaq am na koo xam ne kii noddanti oto lay def noddanti oto bu fekkee ne àq juñ ko ameel jox ko ko ca mën na cee dund moo njabootam te na am oto bu muy noddalil boppam am na ñoo xam ne seenu ñaq ñu ngi koy dunde ci defari pënu defari pënu waaw di gonfale sol ci aeraka tiblees yeeg ñoom seen yooyu <laughs> ak ak daax bën bën yi defe naa vulcanisateur lañ leen tuddee am na ñoo xam ne taqalay fiil la ñuy def mooy électricien yi léeg-léeg ci bâtiment léeg-léeg ci ci oto am na ñoo xam ne ci courant ba la ñu nekk waaw ñoom euh, directeur DG Bitey ak ña koy jàppale ci wàllu googu te kaw ba ca suuf am ñoo xam ne ñoom dañoo jàng dawal waaw di jël nit ñi di yóbbu barab sàngam di leen fa jële di leen delloo ji ñi ñépp koo ci xool ma nga jéem a am métier waaw ma nga jéem a dunde aw ñaxam am ñoo xam ne faseet fasu fasu ñoo yéenee xëy fasu ñoo yéenee gont amuñu métier waaye lu waaye dajale ñu jaar fa ne ko fuuf bàyyi ba tëdd jot ñëpp tëdd ñu dugg kër jàmbur jël lam am diir ko fetal bu ñàkkee sens ñu ne ko tuy yóbbu ay bagaasam ñu ubbi enquette am ko xam ne mën ngay dox ci mbedd mi ñu ne këfet la nga yor ñu ubbi enquête ñooñu cim réew am réew a war a jàpp ci loxo yi ñooñu ba avant yaaye jàmme di jógee Gàmbi ni defoon Gambie waaw yal ko yàlla yokk wér waaw président eh, Yahya Jammeh of Gambia <clears throat> mu ngoog ak nee ñu def màkkatal mukarrama nga xam ne fu la neex teg say bagage mbokk yi tey danañ jàng ñetti addis ci bunt bi te mooy dunde saw ñaq sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ne al Buxaari moo ko solo jàmbaar ja radiyallahu taala anhu nga xam ne téereem bi ginnaaw alxuraan mooy téere bi gën a wér la dal muslimina ci jullit yi te la shakk fii loolu amul sikki sàkk nangi mi junniy at te dana ko weesu <clears throat> nee na sallallahu alayhi nee na maa akala ahadun taaman qat xayran min an yaakula min amal yadi wa inna nabiya allahi daawuda sallallahu alayhi wa sallam wala alayhi salaam kaana yaakulu min amal yadi ci alayhi salaatu salaam nee na kenn lekkut ñam wu gën aw ñaqam kenn lekkut ñam wu gën aw ñaqam bay tool walla def commerce jënd ak jaay nangam nangam noddanti oto kan nangam nangam waaye daal sa jëfi loxo mu jàngal ñu nag benn nawleem benn àndandoom bu bu bu bu bu bu naw mu bëgg ñun ñépp ñu roy ca kooka waaw kooka daawuda la tuddoon daawuda tey mboolem koo xam ne kii da ngay def méccam tëgg maanaam mécc moo xam ne dangay liggéey ci wàllu weñ su sallallahu alayhi nee na métier moomee métier mu baax la nee na di ci aw xam la daan dunde hmm? waaw boo soxlaab gopp mu defaral la boo soxlaab ëlléer boo soxlaa jaasi ba soxlaa paaka boo bëggee daas jaas ji boo bëggee daas paaka bi ba dem ba ci mbubbi koŋ yi ku bëgg a dem xare waaw ba bëgg ba àgg ci fett ya xocc ya xale yi daawud ci loolu la doon liggéey lu ko ca waay faye mu yóbbu këram dunde yonent bi naw ko lool ba wax ko saxaaba ya wax nu ko waaw te mécceem daawuda li tax yonent bi tànn ci yonent yépp daawuda mooy dafa am ci penc mi métier yu xeebu ndax nun nooy xeeb métier ba léeg-léeg ñu xeeb ka mécce woo mécce ma kum ñaan jabar nga bañ waaw ndax xeeb mécce moom alayhi salaatu salaam ne ah da ngeen a dese xam rek waaye yonent yàlla daawude de moom mécc mi ngeen di xeeb ci pénc mi mécce mooma la doon mécce te ku ne xam na daawuda waaye nee na daawude xeebutoon mécceem ma bu wàccee lom ci am yóbbu ci njabootam ñu bokk ñu bokk dunde yonent bi naw ko lool moom daawuda te bëgg nu nu roy ci daawuda te ku roy ci daawuda doo xeeb métier mbokk yi maa ngi ci min kunoo si sunna maa ngi ci dunde saw ñaq alayhi salaatu wasalaam wax lu wax jure ji waaw amul kenn kuy lekk kuy lekk ñam wu gën saw ñaq maanaam liggéey sa loxo muy saw ñax ñu ne ko ha mu ne ah nabiyullaahi daawuda de alayhi salaam moom de aw ñaqam la daan dunde aw ñaqam la daan dunde toog ca mbaar ma di defari ay gopp wala boog di defari ay ay ay ay ëlléer waaw ñu koy fay ay ñaar fukki ki juróomi dërëm muy dajale bu ci jot mu dem jëkkër kër gu dund mook njabootam loolu de moo gënal sallallahu alayhi wa sallam nit kuy lijjanti ba amub million di lijjanti ba am milliard di lijjanti rek ci kaw nit ñi di domp ci ñaq nit ñi dajale waaw di domp ci ñaq nit ñi dajale ba xëy amub jël Muxtaar Sekku nee na léeg romb nit mu am R plus 3 nee na waaye àq yi nit ñi am ci moom buñ ko buñ jëloon seen àq yëpp du am lu mu avancé lu yaas Ah, waaw te bis ngi ñëw nga wàcc troisième étage ñëw deuxième wàcc deuxième ñëw premier wàcc premier ñëw R waaw mu ngoog wàcc R yéeg ci oto bu ñuul waaw corbillard wala oto bu xonq boobu sapeur wala bu weex bi ambulance <laughs> xeetu oto yooyu <laughs> yàlla nañ ci yéex a war waaw rekk tabarkalla dem ba àgg fenn au lieu R R plus deux nga dem R moyen waaw léegi nekkatu R plus R moyen nga ndeysaan min al qasri ila al qabri cëy kon benn hadis baa ngi noonu sallallahu alayhi wa moo ko wax ci dunde saw ñaq daal di koy misaal ci yonent boobu di daawuda te te xeebutoon lam doon ame ca ñaq wa moo waxaat ne moom alayhi salaatu salaam ci addisum ñaareel bi ci bunt bi kaana nabiyullaahi daawuda laa yaakulu illa min amali ba tey albuxaari mu ne yonent yàlla daawuda alayhi salaam daawul dunde lu dul aw ñaqam daawul dunde lu dul aw ñaqam waaw ñetteelu addis bi nag am solo lool ni addis yëpp amee solo waa jaa ñëw ca jàkk ja mbooloo mi julli ba noppi muy yalwaan waa jaa ñëw ca jàkk ja mbooloo mi julli ba noppi muy yalwaan alayhi salaatu salaam wutal ko solution mu bàyyi yalwaan gis nga ci sunu pénc mi ñi yalwaan noonu alayhi salaatu salaam doxale mooy wutal leen solution ñu bàyyi yalwaan waaye coow leen du leen taxa a bàyyi yalwaan ramaas leen du leen tax a bàyyi yalwaan da leen di wutal solution waaw waaw léeg sunu magum daara Alioune Fall euh, dugg ci antenne bi wax wax yu mel noonu bëri na ñoo xam ne ay handicapé lañ waaye ku leen wutal solution ñu bàyyi waaw ñoom sekk silmaxa waaw dañu am seen association boo xam ne bii defar ay serviette defar ay nangam defar ay bale defar ay nangam indil leen solution bañ bàyyi yàlla waan yomb na mooy loolu ñuy def na ko ministre yi jënd waaw na ko ministre yi jënd au lieu ñuy emporter ay ay ay ay ay ay serviette ndeke réew mi am na ay silmaxa yu mën a defar yooyu ak i bale waaw waaw am na ñoo xam ne duñ silmaxa ñi ngi ñi ngi xool waaye handicap bi ñu am xëy na ci tànk laag yooyu barki démb ba ñu leen fekkee fële ca Thiès allahu akbar kenn ku ne tiim lim def waaw kenn ku ne tiim lim def dangay nga ci sa boroom waaye ma ñëw ma del siwaat waa ji dafa na ci jàkk ji ñu sëlmal mu jóg di yalwaan ki yàlla yónni woon di ko xool yuuxuwu ko de néewu ko toogal de déedéet néewu ko toogal de ndax moom ci wàllu tëralinu àdduna li ko ci yàlla may moom rekk la ko ci may waaye mu bëgg nag mu roy ko ci bu nu amul vingt sur vingt ni moom it ñu am li tàmbali di sept jëm suuf te bañ a am zéro waa ji yonent bi séen am ku ko jox mu toog am ku ko jox mu toog am ku ko jox bu dee dakaar nag waa jàkk jëpp mën nañ laa jox te doo am vingt mille <laughs> yàlla du yàlla yërëm seetet bu dee dakaar jàkk jépp mën na laa jox te doo am vingt mille maa la ko wax dakaar kenn du ah astaghfirullah jékki-jékki ñu ne diw dafa saraxe cent millions moo tax fi ne boo joxee ci jàkk million daf leen di yéem waa jàkk ji allahu akbar waaw ilimaan daggalab dog joxe lak ñaan ba ba ba ba at mi di jeex deux mille vingt deux bi <laughs> fu ñu waxtaanee wax la ndax at million moom ci jàkk dafa yombut waxuma laa takk ci nag euh, takk ci nag téeméer jox nit te nag lu jaadu la lu jaadu la ba demee Soudan ña ngi koy def ba demee Israël ña ngi koy def bu njëkk ca Màkk daanañ ko def waaye léegi xewi na waaw Dakar gi nag waxi nopp moom moom jàkk jumaa jumaa ji fukki junni nit mën nañoo julli si nga naan looy mën ci jàkk ji looy mën ci jàkk ji buñ julli ba ñëpp ñibbi nga jóg li nga yoroon doo am vingt mille waaw ala xaal waa ji ma nga yalwaan yonent baa ngi seen ñu koy sarax ñu koy sarax ñu koy sarax ba yonent bi gis ne loxo ba daraan ca waaw yonent bi gis ne waa jii di yalwaan loxo bi daraan ci mu ne ko mër kaay mu ñëw mu ne ko sottil fii li nga yor ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam jàkk jëpp a ngi seetaan mu doon benn benn genn bidd gidd boo xam ne li yuxrija naasa mina zulumaati ila nuur waaw solutionnel nit ñi seeni problème moo ko fi indi woon te moom rekk la man sottil ci suuf waaja daal di jóg lam yoroon ci suuf mu posé ko benn question bu am solo daf na ko am nga jabar ndeysaan <laughs> waaji na ko waaw am naa jabar mbokk yi waa ji am na jabar day yalwaan di yóbbu yonent bi bëgg koo jëleen ci yalwaan mook jabaram ak famille bu yëpp teele ko ci yonent bi jëlee am nga jabar mu ne ko waaw mu ne teqeet ca xaalis ba dara ne ko yët ko yët ko lim na ca teqe dara yët ko femme bi mën na cee mën na cee eh, dépense su eh, samedi dimaas lundi mardi mercredi ba jeudi kon yalwaan ma ndaw si mën na ci dundu semaine mu teggi ne koy demal nga yët ko c'est-à-dire ngi koy créer métier waaye mi ngi koy créer ni muy defe lim am waa ji dem ci kër ga yët jabaram la ko yonent bi jox ne ko nag ko jox du ko lii nag mu ne ko dama doon góor góorlu ca jàkk ja dañ ma koo sarax acca acca delsil waa ji daal delsi mu ne ko defal lii ci sa poos <laughs> sallallahu ne ko defal ci sa mu def loola ci poosam mu ne Ali mu ne ko labbayk mu ne ko am lii nga dem ca marché ba wutal ma ca Euh, njur ak ku faccu njur mooy ab bant facc mooy euh, weñ giñ ci def incha saabu saa bu bis bu euh, télé bi pare macha allah buñ koy defati dañuy indi ñaar yooyu bu ko defee woy seetaan yi gis ko waaw noonu la ko fàllu si si daan defe ndeysaan surtout maam ca rajo rajo dunia wala ca RDV mu ne Seydina Ali kon demal nga wutal ma lu mën a taxan Seydina Seydina Ali wutal ko xepp wutal ko buum daal ñëw ci waa ji kon li waa ji jot a am ci jàkk ji alayhi salaatu salaam jàngal na ko nu ñuy partager liñ am yóbbul lii sa kër dencal lii lii wut ci loo liggéeye yóbbu lii sa kër dencal lii li wut ci loo liggéeyee su boobaa lim ko jàngal ci biir lim am akas néew wan na ko ni nit su amee da yóbbu këram njabootam dunde kuy amit doo yóbbu lépp day am looy denc demal ca banque ba denc ko fa ubbil compte ubbil compte de ndeysaan ba ma gone gu jigéen gi ñëwee ne ma papa damaa bëgg nga doon sama papa mu ne ko amoo papa mu ne ma ah kay waaw rekk rek saan ak wax ja waaye da dama ne ko ah man nag ko ma doon sa papa ci gone jigéen yii mu ne ah ma ne ko da bàyyi weer bu nga bëgg a sol lu bees loolu ngay njëkk def la ci tege mooy da amul fit la ci tege mooy dangay ngay ubbi compte mu ne ma luy amul fit. ma ne ko xew yi jigéen ñuy xew da am fit wu toll ni soo ma tàggoo bu mën a làbbul dem doo dem ba <laughs> ne ko ñett boo ko defee bala nga fi am juróomi at jàpp juróom mën naa am nga am foo dëkk ndax li ngeen di liggéey bu fi ngeen amul pàpp ju leen orienté ci loolu laxasaa yoog yéen mën naa am du ngeen dugg fenn loolu jara bàyyi xel la jigéen ñi ni ñu sonn ci dëkk bi fi ne waaye ñu ci bëri amuñu terrain tey waxuma laa nag villa ndeysaan lu ñu liggéey rek bu xew ma jotee ñu ne ko ci pëy ndax ragal seeni bokk ñëw toogaat ah maa la ko wax yonent bi daal ne waa ji a ci jëlal xepp li jëlal buum gi mu ne waaw mu ne ko acca demal ca àll ba matt goo gis mu wow daggal jóor bu wàcc jotee yenul boo ñëwee nga nga jóg ko fële daal di koy joxañ benn koñ ci jàkk ji ci biti maag yow nag buñ fi nuyoo fii ak vendredi <laughs> waaw ne ko maag yow buñ fi nuyoo fii ak vendredi hmm? ma ngi koy jàngal ne ko toog ci keppaaru sëriñ yombut mën nga faa toog rek tabarkalla yàq bu ñëw nga añ weesoo nga toog di xaar leneen tey wax lu su yoon nekkut waa ji di taxan di taxan di taxan ba taxan lu bari alayhi salaatu salaam bi ajjuma jotee mu xëy daat ne wutal ko marché Aliou soxla nga matta mu ne waaw mu ne ko jaay naa la sàmbeeg sàmbee Abubakar soxla nga am yow diw ba ba mu jeex takk waa ji lim am mat na juróom benn yoon lañ koy lañ ko saraxoon ca jàkk ja alayhi salaam daal ne ko nag li an yaxtatiba ahadukum xusmatan ala dahri xayrun lahu min an yasala ahadan fa yuctiihi aw yamnau mu ne ko kenn ci yéen dem ca àll ba taxani yanu indi jaay moo gën ci moom di laaj nit ñi buñ ko joxee lee moo gën ci moom buñ ko joxut lee moo gën ci moom mbokk yi benn bi nangu noonu ci min ku si sunna te mooy dunde saw ñaq yàlla nan ko man ngeen man ko waaw yàlla nan ko man ngeen man ko lu nu ñaq lu nekk it yàlla na am barke nu mën koo dunde noog suñuy bokk jër ngeen jëf ci ànd bi Sud FM seen rajo bind bi tam bu ko dégloo benn yoon ñaari ñetti yoon ba jàpp ne mokk na ñu indi beneen bind ba bees incha allah jéggalu soxna yeeg sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi ne taxaw yoo seen i këyit bëgg leen a firim fàncal xibaar tuwaaf firim fàncal ko cowaaf ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bii C3S defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ngeen àndaloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu